ba ñu wuy sa it lañ fa waroon a nekkee dong lañu fa nekk amuñu soxla amuñu soxla ci ay ñam amuñu soxla ci business mooy liggéey ñëw fi di fi liggéey donte ndaje mu mën a am bu dee diine lañ ko wootee lislaam te réewut ku fa liggéey liggéey bu dagan ndax bi muy diggalee aj gi bi muy diggal aj bi ne waa adin fi nnaasi bil xaj ko rijalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiqin li yashhadu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 séen waaye loolu lu ci soof la nangam rawaayal waaye bi ma jëkk a wax ne am na te bu ko bi fekke woon nga xam ne dem jox ko loxo ci màggal gi mën naa tax mu fomm ko ba ca jëkk waneelu gi ma wax léegi ñii di solo di summi jël yor téléphone bi ñaari minutes yu nekk ñu solo ca summi ca foto wu foto sa mbooloo ma wane ca jurga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 bokk yi ba ñuy liggéey jumaa njareem jigéen ña newoon ci biir këram laajoon nañ ko ndax mën nañoo barkeelu ca jumaa ca liggéey jumaa ja amuñu luñ ca joxe waaye dañoo bëgg di yanu ca la nit ñi yanu mu ne cib charte góor du leen gis du ngeen gis góor su mënta am toog leen wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati al root ndox mu ñuy naan dara gënu ko ñu farat di ca togg di ca laal ndox di ca gub